asalaamaaleykum mbokki senegaal ñu ngi leen di nuyu ci seen émission démb seen émission démb nag tey dafa dem ci ku màgg ci réew mi koo xamante ni Sénégal mënu ko fàtte muy le cadi Xaali Amar Fall Xaali Amar Fall nga xam ne surtout Déthié njoogu la ndax fu Foundiogou moo jur Manda Site mu jur Koli mu jur Paate mu jur Xaali Amar kooku moo sanc daaray Pirji en 1603 nekkoon koo xam nit it mënoon na nekk damel du Kajoor waaye bi mu ñëwee biram feeg nga Banga Xureeja Koli di dammeel di mbokkam ci la ko jox tundu Sañaxoor woowu mu sanc fa daara ñu fay firi alxuraan ba tey jii dëkk ba ñu koy woowee Pire ndax dañu daan dem ca Pire xaale Omar Fall moom des koy tënk wax ju lu bari xaale Omar Fall ma deset Fall moo jur kuli kuli jur paate moo jur Amath Fall dinaa la wax li wax li war a ñu naa ko waaye Amath Fall Amath jéegi jéegi ba moo yaayam ma nga dëkk moom dafa jàngi gànnaar bi mu jàngee gànnaar am fit am xam-xam naare tey di tudd ko Seydina Omar Omar turu sa Omar yi foofu la ko jëlee bi mu jàngee xam-xam ba tubaar kàlla ba lépp lu mu war a def def ko war a woote ci islam nag jàngale nag mu del siwaat Fuuta dañ yàngoo boobu ñoo nekk Fuuta ma dañ fa ne nanga ko lool boobu yàngoo ba mu yilif Fuuta ñu xatal ko lool li mu bëgg a tasaare ci islam mënu ko faa tasaare xelam dem ci kajoor ni fi la maam jóge woon mu gàddaaye foofu ak lenn ci waa fuuta ñëw fii ci kajoor fekk dameel ma xuréeja mi ngi nekk eh, xàndal gi wax ni ak bokk demee moom mun ko am naa ñetti kër am naa génn ngi gis am naa génn ka nangam nangam nangam àggan ngoon doom bëgg mun ko loolu taxumaa jóg li ma tax a jóg mooy fu ma woote diine islaam wër sama kër yi goo ci bëgg mun ko dama bëgg sama gorob bopp ma boole ko téeméeri fas ni nañ ko nañ la gunge ba foo ne wax rek foofu boo fa demee ñu xalal ñu la ko ñëwee ne mu ne bala ma ko mën a fi dugg xalwa def na fi xalwa semaine ba mu demee ba jeexal nag fii de war naa baax far boobu waa doganu yii ñu ngi fi am benn waaye bu tudd muur jongo aw nagam réer mu ànd ko surgaam surga ba tudd wërsëg ñu koy war ba yàgg ko mu ne ko muuroo mu ne ko kan la mu ko mën a wërsëg mu ko lom mun njariñ fi jurul nag wi mu ne kon fii daal dalukaay la daal dellu wax ko demeel demeel daal na ko boole mbooloo mu bari ñu gor fi di fi gor ba mu ñu mbaar fi am mbaar nag comme que amaguñ fi ni ñu mbaar ay mbaar nag dëkk yëpp di xëy naa dem ca mbaar pirima ca mbaar ya mi ngi fi mbuubeen mi ngi fi wadde mi ngi fi am na ñu ne waa taaleeli nag ñoo ko moo ñoo ñoo ko ñëw fi ñu wax loolu fi nekk mën naa am muy ñooña mën naa am du ñooña loolu dem dem dem dama yàgg dameel ñëw fi nag woo dëkk yépp nag ñu daje fi mu leen bis ni ko tey seen kilifa gi nii moo leen atte bu kenn ñëwati ci man ku ma boo fi duggee tey nga te booba tund wi ba kenn daaw ko wooyee pire kenn daaw ko wooyee ab dëkk lewee lañ ko daa wax wooye nañ ko turu lewee lu man ñaar téeméer at ak ba fi mu ne tool yi sax am na tool yi lewee fi nekk foo xam la jógee kere ci la tur la sensé nekk maa ngi dem ci ma ca mbaar ma ñu continué loolu nga gis dëkk yi ñëw bu yor yoree ñu indaale ay muraake ki togg amu fi ñu koy lekk daal am ñu fi ñëw du fi sanc léeg am ku ni am ko xaqataay ndax boo jur koo yor da nga koy nëbb li may rek ceddo yi jël ko ndax xam nga ba ceddo yi buur lañu woon waaye amul taxi yi ñuy def pour weer de ñu fay la boobu li ñu daan dawal rek moom bu ñu génnee bu ñu gisee juróom jël ci seen aajo loolu léegi dagg na ci piir piir nag léegi ndax dameel maytu ko kenn mu di ko def léeg kenn xaqtaay ree mun ko xanaa yaa fi sañ a xur-xuru léegi kañ nga fi bay sañ a xur léegi sañ a xur-xur sañ baatu sañ ba xam ngeen ko sañ xóor na mooy tiitara kañ nga fi sañ a mooy loolu mooy sañ a xóor foofu la baatu sañ a xóor ko fii ci biir gi la kañ nga fi sañ a xool xool man maa fi sañ a xool xool bay xaqtaa yoru jur di leen sàmm di bàyyi ci àll ba kenn du ko laal foofu la baatu sañ xool euh, jóge boobu mu daal yi euh, diiru fukki mu samp daara ci mu samp juma maam Xaadi Omar Fall ndax léeg-léeg sax ma dégg ñu lim imaam yi ci li ci Xaadi Omar Fall moo nit nan lay indi ñëwee ci dëkk indi fa lu kenn xamul mu samp ko bara bàyyi keneen di ko jiite loolu maanaam Muhammad sallallahu alayhi wa sallam moom gàddaay Màkka dem Madina jumaa jëm fa njëkk a def moo ko jiite est-ce que dee bàyyi waa Madina di ko jiite ndax waa Madina xamaguñ ko dem nañ ba 1800 nangam ba 1800. imaam yi door a tas dem ci waa Ndóoyeen waa Njóobeen waa Caween ñu dem ci ñu def noonu boo ko dee ñàkk xam-xam nag wala xel mu ñaaw mooy nit indi fi lu ñu xamul jox keneen di ko jiite loolu mooy waral kere lañ tudde euh, foofu la ko naari foofu yaayam amaat jéeg baayam amaat la ko tudde naari tudde ko Omar dameer xulóoyu koy tudde ko xaari xaari xaari faal foofu la tudd xaari faal Omar amee mu ci jumaa bañ demee fukki ak juróom yàgg fi du ab diir Samba aadi sanc fii sanc sanc fii muy sanc boobu sanc gii bokkul ci piir comme ni dëkk yu mag yi def di law baax kii mooy première sanc boo xam ne seen xaalis wala sanc rek muy fii sanc fi jumaa kon jumaa ji fukki at juróom la mag a jàkk ji jàkk mbedd maa ngi nii boo toppee mbedd doo ko wàcc doo ko wàcc ba kër ngay àgg jumaa ji noonu la mbir xaalis wala demee ginnaaw bi nag lañ fi sanc ay dëkk yu bare bare bare bare Samba Adi moom moo jur Amadou Malamine Bouba Amadou Malamine Bouba moom wax nañu lu bari ci waa Fuuta yi lu bari ci waa Fuuta yi euh, fi lañ jànge da bu njëkk dan yangoowee cay Fuuta ay bala njaasante ñu bari waaye gis nga bi mu demee ba euh, xaari Omar Fall ndeke bi mu leen di jàngal mu ngi leen di jàngalaale état ak nu ñuy taale fital ak nu ñuy xeexe kiñ ci jëkk yi mooy Thierno euh, kii Souleymane Baal moo dem rek daal di dëkk Yankoba fexe ba jëlee na fa daal tudd daal di uñ nag imaam muy almaami muy fanweeri almaami ak ñett yoo xam yëpp pour lañ ñaare yu bari ci daa lu bari ci daa euh, xaar Samba Adi moom euh, kii Mata Amar Malaan boobu moom moo yoro moo fi yoroon bàyyi Omar Fouti fanweeri ñett yor na ko. fanweer at ak ñett bàyyi Omar Fouti nekk na ko fii am nañu wax sax ne nay Omar Fouti fii la gaañoo nay am na sëriñ boo xam sant Aliou la sant fii la gaañu mi ci mi ngi ci mi ngi ci mi ngi ci xabru yi Aliou Tall la ci ñi ci ñi ci ci ñi dongo yi ma ngi la bokkoon dameel Samba Lawbe jaar na fi ci weeru koor xaw boo ko juumul 1846 euh, 25 euh, octobre la xaw ma yooyu daal bi mu faatu euh, fekk Aliou dafa jàngal benn dongo ba xaw koo lor mu gaañu mu faatu fi moom daal dameel jaar fenn nag ko nag ba ma ñëw am ñu keroog Souleymane Fall mi ngi jàng ci wax mu ngi jàng wax ma nga taxaw fee dameel ñu koy tëggal dënn yi mu ne ko dameeloo yàlla bu dël si maa moo jur baay kii mat na fanweer ak juróom maanaam xaari Omar Fall ñu fi indi bari na waaye almaami yëpp yiw woowuñ ci moom yiw yiw eh, bàyyiwuñ ci moom ndax dafa jóge rek mission bi ngi continuer di continuer di continuer di continuer Maba Jaxu Ba moom ngay wax bi muy dajeeg Buur Siin àbb si ne fii ay donga bokk na ci Assane Ndoumbe moo jur maam Mbondo maam Mbondo jur na jumaay eh, juróom fukki at ak ñett juróom fukki at ak juróom moo jëkk indi fii wérdu tijaan ci spir gi Sénégal spir gi moo ko fi jëkk indi waaye wérdu tijaan nag mu ngi gën a siiw ci ciise waaye Assane Ndoumbe moo ko indi fii waaye maa ko keroog ba euh, euh, maa ba jox daal keroog fa la ko nekk bu fekkee daal amaan am na leneen looy laaj du continuer ah tàng maa ngi lay wax bi amee léegi xaari Omar Fall ku ne foofu jàngale balaa euh, balaa balaa balaa commencé yoo yor lay jot ba mu julli ñaar rakka ci la continué ba takkusaan ñu delloo mu ñëwaat ñu koy def ñu koy def ci la mbuubeen ñëwee fi moom waa de ñëw fi di ay dëkkandoo yu baax yu nekkoon ak moom daa ko dimbali te naan man naa ne ñoo ñoo jëkk a nekk ci ay soldats yoo xam ñoo ko daa dimbali ndax ñoo fi nekkoon bu yàgg waaye kenn ku nekk indi nga sa eh, ñëw si nga waaye waaye pire moom turu pire moom ci xaali Omar Fall la tàmbalee xaali Omar Fall moomu moo jur Samba Aadi Sabaari moo sanc fii mu jaay mu jur Njaay tàkku bëri Njaay tàkku bëri moo sanc Yejin mu jur Amadou Malamin bu Amadou Malamin booba ci la ci la bàyyi say maam say taal bàyyi woon fu di nekkoon mu jur Matar Numbe Matar Numbe bi ñuy taal pir fii la ko fekkoon fii la ko fekkoon boobu mooy moo nekk sañ sanc mooy 1864 bi tubaab bi taal pir fii la ko fekkoon moo jur way ko jur Matar Numbe bokkatu bi nekkoo ko de moo moo bi Fall la sant kee dafay kee kee dafay jàngee ñu tudde ko moom Matar Ndoumé boobu lañ tuddee Matar Ndoumé bële. Matar Ndoumé Fall moom lañ tuddee Matar Ndoumé Diop bële ñooy Matar Ndoumé nag bu kooki daan jàng suul fii nag nekk fi ku jox ko tudde ko jox ko mu yóbbaale ko indiwaat dikkaat fii moom fii la ja fii la fii la fii la jàng moo jur nag Souleymane Fall mu jur baay bi noonu la demee. kon mën naa ni ci tënk ci foofu laa ni bu fekkee amati nooy laaj. waaye euh, hmm. euh, ah. Omar Fuuta Taal tam wax ñëw na fi muy yàgg fi xaw ma Omar Fuuta ni ma ta ni mu baaxoo rek ñaar yàgg fi barab du ko def ñëw na fi ñaari yoon ñëw na fi ñaari yoon waaye bu ci nekk. benn bi at la benn juróom benn weer mu dem bàyyam nag moo fi am fanweer ak ñett bàyyam nag liggéeyaloon sëñ daaraam la mu tànn bi am takk na fi soxna ñu naa la laa ko déggee am ñun tam yaayu Omar Fouti fii gaañoo kooku ci El Hadj Cheikh laa ko déggee ñu ngi suuf say xuus maanaam pire daal boo ko seet benn pàkk ci Fuuta pàcc la woon ci Fuuta boo xam ne bii ku dëkk Fuuta rek boo boo boo fa doo fa mën a nëbbu surtout Kulaar ak. naari naari eh, arabi naar yi sa saasara waaw ndax boobu foofu la yoro yoro fa làkk yooyu la làkk foo dégg tam ñu naan baa siin mimara liif lam lam ra arsaqir wala baa joor wala ay pir gi ko jële moom moo ñëw jël alphabet bi seet nuñ ko traduire ci langue alphabet yow ma xam waaye boo koy ijji nag su koy ijji ak ni ko arab wax ak ni koy xam benn waaye ni nga fexe ba xam ni moom di nga fexe ba xam arafam moo la koy jàngal bu ko defee ah, lii ba wax ko bu dee buñ ko iji nag ñooy ànd noonu daal noonu la demee Pire nag mooy moo dëkk boo xam ne dëkk bu mag la dëkk bu yàgg la nee la Omar Fouti eh, eh, maam Seydou maam Xaliil Omar Fall mu sañ fii man am na juróom fukki at juróom am fi am fanweer fii am na fanweeri dooga gaañu te bi fii ñëw tam benn tubaab euh, ñëwagul Sénégal tax mu xam nga tubaab boo yore seet ay mille six cent cinquante cinq xaw ma euh, foofu la ñëw te bi fi ñëw benn tubaab ñëwagul fi moom rek moo fi nekkoon xaalo man Fall tam moom li euh, wérdu xaar itam la doon wérdu ndax xam moo fi nekk ndax moom boo koy seet moom mag si Ahmad Tidiane moo jiitu kon loolu daal ay ci tënk rek mbir la woon moo xam ne bii laa ko jotee maanaam xaali Omar Fall ma desat Fall mi ko jur ab laman la woon boo xam ne Kajoor la nekkoon moom moo taxawoon lalikul fàkk di ko laaj ak moomeel ci Kajoor ñu koy wax ba yàgg ñu ne ko Fall foofu la faal jógee ne faam lañ tuddoon faam lañ santoon foofu la faal jóge ñu ko faal kon sëriñ Pir am yéene fàttali lu ko ci Serigne Pir Xaali Amar Fall vers 1418 Xaali Amar maamam ñu ko faam bàyyi ko faam Kounda ñëw sanc Pëleen Dëdd askanam soose la juróom fukki at ak ñeent gannaaw xeexub danki bu soobee nga ne jamono bi nga dégg werakaan mi naan danga naan reer ba tudd jot buur tëdd am ndëndëm ni ku fi fanaan dib jàmm teg ci naan da daan bay gerte bay dugub mu ne gàññi buur teg ci loxoom ni la jël naam ci jamono bu lëndëm jamono bu tiis boobu la xaale amar egsi Pire bi mu fi egsi mi ngi ci quarante liggéey bu rëy bi mu liggéey bépp ci dëkk bi mu ngi ko liggéey ci trente cinq mu xaddam la woon ci tarixa xaadiriya moom xaali Amar damel ma xurée jo kuli moo ko name médiateur des conflits diggante Kajoor ak mboolem réew yi nu wër moom xaali Amar dund na quatre-vingt-trois ans mi ngi wàccub liggéey mille six cent diggante jumaay piir ji ak xabroom bu tedd bi ñetti téeméeri mètre kepp ab taawam Serigne Pire démb di continuer liggéey kon Serigne Pire mi ngi fi egsi ci mille six Serigne Pire Xaali Amar mi ngi fi egsi ci mille six cent trois bi mu yegsee Wàdd ak mbuubeen ñoo ko dal lii moo indi aaday ku jiite Pire fanaan ñetti guddi mbuubeen yenn ñetti bëccëg wadde ba sunu jonn yàlla tey xale bi mu yegsee fii encore yi mu jëkk a teg teeg da ma xuree jëkku bi ca mbul capitalu kajoor ci jamono jooju bokk na ca suppression lépp lu di ak njàmm suppression mboolem xeeti ñaawteef yi bàyyi ko ci ceddu yi jëm ci population yi encore yooyu nag mu ngi concerné képp ko nga xam ne rek dëkk nga piir ak képp ku nga xam ne rek def nga pexe rëcc dugg péncum sëriñ Pire kër sëriñ Moustapha Cissé nga gis jàkkaarloo jumaa ji mi ngi ci digg péncum sëriñ Pire fukki dameel ak juróom ak juróom-ñetti dameel teeñ li tàmbalee ci dameel daaw dëmb xuree jëkkuli ba ci sàmbalaw bi xuree jëmbooj ci 1886 ñoom ñëpp maase nañu warmaal dogal yooyu maase nañu warmaal accord yooyu xam naa ne nag bi nga ma laaj nga ne waaw xaali amar lu waral bi mu see fii mu fekk fi borom daraja borom kartan bu toll nit da mel ma xuréeja kuri doomi ma sàmba tàkku mu am amoon nu góoreel sobal mu am sañ-sañ bu toll ni sañ-sañ bi mu am ci moom loolu daal xam naa ne il faut que di nga ma ko laaj li ko warala nag xaali amar bi mu yëg si fii dafa ràngoom mboolem critères yi nga xam ne képp ku mu daje ci yow ñu yaakaar ne da ngay xëccoo ngóor ngir bu dee ci wàllu guyon moo gamel ma xuñu jëkku li mu ñoo bokk menn maam muy demel di ceefu njóob bu dee wàllu men soxna jéegi ba wajuram bokk ci askan wu nga xam ne seenu njàmbaar ak seenu fit kenn mënu koo takk sama borom may leen xarala gu nga xam ne sama borom may leen xarala ci mboolem xeeti gànnaay yëpp sàmb galaaj yi jéegi mu siiw ma mu ngay dégg bàyyam galaaj yi jéegi moo xaali amar mi ñoo bokk wenn weenu jéegi ba mi ma lay nekk xam nga ne loolu rekk doy na sëkk tëkk xaali amar bi mu yëg ci fii dafa ànd ak alal ju bare bare nag ànd ak mbooloo mu bare bare ànd ak mbooloo mu bare bari mu ko diggal ànd ak boroomi xam-xam yu ràññee ko ràññee ko ci domaine yu yitteel jamono université de Pire deux cent cinquante trois ans d'existence et d'authenticité mille six cent onze mille huit cent soixante quatre fukki xarnu bi ak juróom-ñett ak fukki xarnu bi ak juróom-ñaar Pire nekk na di dëkk bi gën a siiw ci Afrique bu soowu jant li ko war a waralan mooy université bi ma la wax conservateur bu mag ne soixante deuxième année ba trois cent quinzième année après la bataille de Danki de quinze cent quarante neuf fu ay kuréel nekk rek fu doomi soxna nekk rek fu gër mi doomi gër nekk rek bu ñëwul piir ci saa rek ñëw na piir ci baati yi kuréel seen yitte mooy jàng yi kuréel seen yitte mooy jàngale yi kuréel seen yitte mooy ziyaara tibb si ci barka ci des bu doon ci jamono tey ñu ngi leen di tudd ay chercheur ay journaliste kuréel yi ci des ñu tudd leen ay ret ay agent secret agent secret yooyu xam naa leen bu baax agent secret yooyu xam naa seen i kilifa agent secret yooyu xam naa seen i sët mais adduna wóoru agent secret yooyu mën naa laa wax seen i sët mais adduna wóoru jaare nañu université de Pure buurub làmbaay kenkanoorub goñ piir baaxe ko soxna Penda bu yow sii di gën siri Njaay doon buur ba Jolof Alburuseyni bu jaare université de Pire Pire baaxe ko soxna Caane Fall dameel sàmbalawu bi xuree jëmbooj jaare université de Pire ko soxna Faat Fall Bambado buurub làmbaay teeñ fa bi langar ngom gérer université de Pire ak ñeneen ak ñeneen ak ñeneen na nu université de Pire lépp lu ñuy jàngale ci université yu moderne yi dolli ci enseignement mystique jàngalee na université de Pire maam Mor moom soxna Anta Sall kat ma Lamine Bouba Fall maa buri Bouba Fall maam Matar Ndumbe Sëriñ Kokki Njaga Isa Bay Xaali ma jaxate kala ak ñeneen ak ñeneen. ay fan yu néew gannaaw ndamal Lat Joor la bataille de Ngol Ngol noon bi di waaj pour lakk université de Pire mën la nen buuba faal recteur université bi yëkku ci baatin mën la nen buuba faal boo ko bëggee xam maami oustaz Boubacar Maram maami mbuus yi dégg mooy maami boo ko bëggee xam mooy ma ma ma Lamine Bouba Fall maa buri Bouba Fall magam mooy maami ah, ah avocat bi moom tudd Ah, maître ma soxna kan awka mbala mi bu fal recteur université bi jox ndigal population yi ñu wiiri lu doon alxuraan karim ci université bokk na ca kaggu Cheikh Umar Fuutiyu Tall kaggu Chérif yi tàndaxe yi waasi bi korota waa bangeer kagguy borom ijaaba yu siiw yooyu ngay dugg kulo monde ak yeneen i lépp ñu suul ko ci point de repère bi ngay gis ci jumaa ji borom aajo yi ma wax leen ko tey aajo bu dagan bu mën a doon nga ñaan ko ci point de repère bi rek sama borom may la ko expressément ci carte bi nag du gudd ndax xam-xam bi bariwul te ñooña ci boppam ay mag lañu wan ñoo xam ne fekk nu leen fii am na ñu nu fi jiitoon itam nag sax wante lañ ci xam ci ñoom ndax booba jamono yi dafa dafa wuteeg jamono yi léegi yii wante li nu xam ci waa Paaleen daal muy Xaali Amar Fall ak waa Mbuubeen ñoo leen dalaloon Eh, nekkin wayit nag wax nañ ñu nekkin wu rafet la ndax Xaali Amar Faal ku yiw la woon ku tedd ku yàlla suturaal ba loolu amee nag sunu maam yooyu mu ñëw fekk leen fi ndax moom Xaali Amar dammeel moo ko fi indi woon jox ko sunuy maam maanaa maanaa dénk dénk dénk ko dénk leen ko maanaa mu doon sëriñu dameel ah ci loolu nag seenu nekkin rafet lool maanaa lu mu soxla dem ci ñoom ñoom it lu ñu soxla dem ci ñoom waa baatee naka naka saalika noonu la demee rek dañu doon dem leen te di fekke leen te diggante bi nekk diggante bu ratax boo xam ne loolee mooy dox ba tey jii kontaan nag ci visite bi nga xamante ni moom ngeen jagleel daara ji euh, di ci kontaan bu baax a baax a baax euh, daara sëriñ Pir Xaali Amar Fall euh, suñ ko mënee tënk ci ay point bu dee ci wàllu histoire xam na ni mooy daara ji nga xamante ni moom moo jëkk ci bu nuy wax raison bi nga xamante ni fii lan nekk waaw léegi bu dee wàllu njàngale mi fii mooy saal bi nga xamante ni fi la xale yi jàngale fi la xale yi jànge euh, juróomi ustaas ñoom ñooy jàngal xale yi euh, classe bu ne war naa toll ci ñaar fukki xale juróom-ñett ba ba ci fanweeri xale euh, heure bi nga xamante ni la ñuy yeewu pour commencer jàng kenn ku ne xam na ni alquran njàngum alquran fajar da cee am solo daara ji euh, intégré na euh, français ñoom monsieur mbay Fall mi ñooy ñi ko yore parce que seetlu nan ni problème yi nga xamante ni moom mooy jànkonteeg daara yu bëree bëri wala lu tax parent yu bëri di ragal dugal seen doom pour ñu jàng daara parce que bu mu am tardement ci français pour régler lu mel noonu nag moo tax ñun ñu dugal français euh, seetlu nan ba xam ni français bi mën na ànd ak njàngum alquran mi te du ci yàq dara parce que ni ko programme mooy vendredi ci ngoon vendredi nga xam ne xale dañu xëy jàng euh, alxuraan samedi vendredi huit heures ba dix heures xale dañuy jàng français bu ñu xëyee neuf heures ba midi et demi xale dañuy jàng français muy samedi bi samedi ci ngoon encore huit heures ba dix heures xale dañuy jàng français.

ba pare parent bëgg mu jàng français fekk mu fekk mu âgé wala moom du am fondement boo nga xam ne dina ko permettre pour mu continuer français bi mbokk yi gis ngeen nag seen euh, émission démb ci ku mag kooku di Xaali Amar Fall <clears throat> Xaali Amar Fall nag euh, wax dëgg yàlla bari na lu xew ci daaram jooju ca piir même révolution bi nga xamante ni moom la euh, almaami yi defoon euh, ba dem daaneel deñanke yi fuuta foofu lañ ko defee ci daaram ndax xam ngeen ni Xaali Amar genn wàll gi ci wetu yaayam ay xalpulaar lañu ay fuutanke lañu loolu moo waral euh, xaali Amar Fall di mbokkum waa Sénégal yëpp boo demee tey jii Fuuta bari na fa dëkk yoo xam ne boo fa demee ñun la dëkkum maamama waaye nag ñu xam ni moom surtout dameel la te comme ni ko nit ñi waxee rek ceddo moom saa yu duggee ci diine moo cay man loolu moo waral li mu def ci àdduna mu def ko moo tax incha allahu suñu symposium bi ñuy def chambre de commerce le 8 juillet bu soobee yàlla di dinañ waxtaane xaali Amar Fall waxtaane fa Cheikh Ibrahima Fall waxtaane fa euh, Kocc Barma Fall